Toto Paye Fall pour qu'elle nous parle culture comme chaque mardi alors Astou Paye ça dépendra maintenant de toi am euh, eh, nga choice I speak nga euh, choice entre cinéma littérature so <laughs> I will take cinéma de l'anglophonie. Ouais. <laughs> exagéré et très profond. bon oui on parle cinéma d'abord. yeah I choose cinéma. ok ok euh, alors euh, cinéma donc on va parler de Ousmane William Mbaye. Mm. ak film bu mu def ci Cheikh Anta Kemtiou. Ousmane que nous aimons tous d'ailleurs. Mm, ah, waaw waaw waaw que que vous mm. appréciez tous. que nous apprécions tous <laughs> voilà donc euh, dem nañ ko gisante nañu ak moom mu wax ñu tuuti ci film bi. nañ dem xool élément bi après ñu dellu ci waat gêné, ça ne m'intéressait absolument pas de tomber sur l'Égypte, pour ce que je cherchais. Quand je suis tombé sur l'Égypte, mes camarades le savent de ma génération, j'étais gêné, ça ne m'intéressait absolument pas de tomber sur l'Égypte, pour ce que je cherchais. film bi Ousmane William Mbaye def ci Cheikh Anta Diop dekkaliwaat lu bari mu mel ni dañu delloo gëddëm mel ni dañu delloo gëdd gi wax doomu ceytu bile. Cheikh Anta nit bu neen nii. Cheikh Anta borom xam-xam la te Cheikh li mu liggéeyal pour Afrique doom yi nit ku ñuul africain yi war nañ ko xam tey euh, doo dem lycée doo dem université ba ñu jàngal la Cheikh Anta Diop or Cheikh Anta li mu fi teg sénégale yi ñoo ko moom africains yi ñoo ko moom te daf leen di jox doole pour ñu mun dem ci àdduna si. ni ñu duppee film bi Came to You gën a fësal li Cheikh Anta yàgg di xeex. Kemtiyu mooy ñi dëkk Kemet Kemet ci wax yi égyptien ancien pharaonique mooy terre bu ñuul ñi dëkkoon foofu ñoom ci seen bopp dañu ne ñoom nit ku ñuul lañ donc moo tax euh, bi mu bi biñ ko weddee biñ ko weddee ne ko li nga wax du dëgg mu génne ci linguistique yi ne xam nga soo nee soo nee Roxane ñu xam ne séeréer nga. film bi nag nekk lu yomb def ci kaw. ay fonds yu Fopica teg. c'est la première fois man ma am euh, facilité def film parce que Sénégal def ci dugal loxoom Fopica euh, biñ ko créer mu am ay trente projets ñu subventionné ko. bi ma demee France ak sama subvention dama nekk seen euh, xaw ma ni ñu koy waxee seen égal nekkatuma di wax ne dimbale leen dama leen ne sama dëkk gis na sama projet. teg na ci lii. gëddu film bi tax mu bokk ci sélection festival film du monde de Montréal mu mel ni li yëngu nag li ko yëngal moo ko ëpp doole. voilà en tout cas c'est un film euh, ko Cheikh Anta Diop j'allais dire Cheikh comme mm. nu mu ko bindee moom ah. ci ci ci film bi en fait lan moo tax ma dellu dellu si mm-hmm. mooy ne déjà dañ ko tànn film bi si benn festival bu mag festival du monde du film. ca ah, Canada donc jàll na sa 31 août. ginnaaw loolu am benn benn groupe boo xamante ne mi ngi tudd jàngat. Mm. donc groupe boobu dañ jël benn prix bu mag jagleel ko film bi mm. ndax li mu dellu si waat si œuvre Cheikh mhm. ak ni ñu xamee li Cheikh Anta def yëpp. Mhm. te au début nit ñi nangu luñ ko woon benn ba teesam bi nga xamante ne moo doon que que la civilisation noire bi nekk Égypte euh, c'était c'était la première civilisation. Mhm. donc ñu koy xeex di ko xeex ba euh, léegi defe naa ne ñëpp nangu nañu teesu Cheikh Anta boobu. te ginnaaw loolu itam euh, dañuy wax tamit ne. ñi ko jox prix bi tey tudd euh, jàngat groupe bi ñu ci bëri étranger la ñu nekk nekk Canada am na tamit ñu nekk Sénégal ñoom tamit dañ doon xeex ngir ñu jël euh, éducation enseignement wu Cheikh Anta. Mhm. def ko ci niveau scolaire bu nekk. muy histoire filo euh, ak ak sociologie. léegi nag ñoom xeex nañu ko ba léegi nguur gi nangu na ñuy jàngat Cheikh Anta ci ci niveau scolaire bu nekk. Mhm, mhm. donc looloo taxoon ma bëgg dellu siwaat ci film bi. ñu fàttalikuwaat tuuti Cheikh Anta te xam na ne bu Ousmane William Mbaye dellu see. Dakar. Mhm. dina amaat beneen projection ba xam ne dañ ko def institut français bu Léopold Sédar Senghor. gis naa film bi bokk ci kii njëkk na daw ba pare daw na sax. def nañu benn projection bu njëkk. mais dañuy dellu waat def yeneen projection. bu euh, ñu produit bu ñuy. waaw na dem tamit Côte d'Ivoire. je sais pas par contre date bi laa xamul xaw ma ndax passé na. wala kii na ba pare lu la wóorul kii dafa sab. waaw moo tax ma pare ma bàyyi ko kii sab na ji rek dese peine bi ma koy jaral en fait toujours il faut j'ai envie de l'étrangler en pleine émission non mais oh là là oh oh non non dafa sob non bàyyil mu mottali rek. comme comme na bukkutul mooy moutarde nañu bàyyi waay. what the hell. hey what the rek laa bëggoon yokkaat mooy ne mooy premier film bi nga xamante ne Fopica jàppale na ko. pour pour pour réalisation bi. donc c'est le premier film bu fond d'aide cinématographique bi ñu ñu tegoon si wàllum ministère de la culture et de la communication. après après le film avant que tu ne parles du livre. Mm-hmm. Bijok Alfi ñu ngi leen di xaar. <laughs> le grand quiz. des dégringolés <laughs> le grand quiz des femmes mariées. mariées contre célibataires. pourquoi pas non je blague téléphone bi woote leen. kan waaw est-ce mu dem rek tey. xaaru tabaski ak ay cartes ak ay cartes yu def benn bu nekk vingt cinq mille mais yéen yéenay tànn ban loxo ngeen wóolu soit sama loxo loxo Alfie. loxo sa loxo boolewaat nga ko ci wax. <laughs> wala loxo mbiri bay sa loxo wala loxo Aïssatou Paye Fall. donc numéro téléphone yaa ngi noonu 88 628 22 22. wala 88 628 65 65 numéro numéro numéro. numéro voilà donc numéro 1 88 628 22 22. tànn ban loxo moo leen di euh, tànnal. Euh, li ñu bëgg <laughs> yeewu leen bi may leen ko euh, ci yeewu leen bi tey. quelle phrase. Mm-hmm. yeewu leen bi may ko ci yeewu leen bi may leen ko ci yeewu leen bi tey je suis très dangereux. Mm-hmm. yeewu leen m'en parlant. <laughs> maintenant après le film Aïssatou tu nous parles euh, de ce de ce livre <laughs> bu tudd euh, paysans et partisans. voilà livre Mamadou Diouf moo nekkoon. Euh, ancien secrétaire général bu syndicat autonomie mm. donc c'est un livre qui s'appelle Paysans et partisans itinéraire d'une organisation de travailleurs ruraux hmm. donc maanaam euh, ki bind téere bi day saytu baal ma excuse-moi c'est-à-dire quand pendant que tu parles de livre bii ni Méribé mu ngi def signe Mamadou Ndiaye naan ko nii. pourtant nag xool moom gis nga bu ci waxee. <laughs> ana bi xam nga buti dama gis muy muy waajal xam nga bandi yooyu ñuy def muy waajal kii. dama koy suuj mu ko mais kii <laughs> <laughs> yàlla dama koy suuj. bul suuj mais. defal ndànk rek bu ko suuj wax nga lu yàgg Pape suuj dama lay suuj suuj wax nga lu yàgg yow dégg nga sama tur ki ñu dóor fii dem Njaay noppil eh. boobu wala maa ko dóor donc euh, si téere bi Modou Lo wax nañ la li ma ko def Aïssatou bayal Aïssatou day ree rek moo ko teg <laughs> donc ci téere bi Mamadou Diouf day saytu li ñuy wax syndicat euh, yu travailleurs ruraux yi maanaam ñiy bay ñiy def maraîchage ak culture éleveurs yeeg yëpp donc euh, bi mu sosoo ba tey day xool bilan bi xool boobu ba tey naka la naka la fa naka la fa tegee naka la fa toogee mm-hmm. euh, moom mu gis ne mënuñu wax waxum agriculture ak yëpp di si tëral yenn di si teg yenn yenn jéego yi. Mm-hmm. te du ñu jël ñi nga xamante ne ñoo nekk ci monde rural bi. Mm-hmm. ñu ñu ñu ñu jiital leen si loolu parce que ñoom ñoo ah xam. naka la les acteurs. moo tax moo moo tax mu. justement euh, mu tuddee ko mu tuddee ko noonu je pense paysans et partisans. itinéraire voilà d'une organisation de travailleurs ruraux. donc nee na faaw ñu boole leen ci prise de décision yu mag yi parce que ñoom ñoo gën a xam. c'est son premier livre non non non non bii mooy defe ou 5. en fait yi mu bind yi ci ëpp ci olof la ko bindee. ok bi defe naa bii mooy ñaareel bu mu bind ci ci ci français. je fais comme si je regardais Sada Kane. je ne le pas <laughs> c'est son <laughs> musuma seetaan Sada Sada fu muy dal. sur la 2. sur la 2 France 2 d'accord oui empreinte digitale. donc pour bon. ma pour Mamadou Diop faw structurer bu baax euh, syndicat euh, monde rural bi. Mm. pour que nga xam ni li bépp jéego bu ñuy teg ci seen ci seen ci seen ni ñuy liggéeyee mu mun mu mun taxaw donc il parle de formation il parle aussi des femmes rurales naka lañ leen war a jàppale ñoom ñi nga xam ne ci wàllu woowu la ñuy yëngu mm. donc voilà paysans et partisans itinéraire d'une organisation de travailleurs ruraux voilà livre la bu ñu leen di euh, conseiller je pense que disponible na fépp si si c'est dispo euh, c'est déjà dispo voilà donc euh, euh, paysans et partisans itinéraire d'une organisation de, que ñoom baykat yi ay jàmbaar la ñu donc bu ñu leen jaglee les livres mhm. euh, paysan bu ci mënul lire sax war nga koo jënd teg ko meebal ci sa néeg genre moi-même maintenant <laughs> billaay <laughs> j'ai compris bi dañ ciy jàll léegi nii euh, qu'est-ce qu'on a comme rendez-vous voilà donc on va parler de cinéma euh, Mama Africa benn film la bu ngi daw c'est ça retrace la vie de Myriam Makeba mm. donc euh, tey ci mardi 6 septembre bi lay daw ci Aula Cervantes point E je connais pas. sérieux foofu moom je suis très sérieux je connais pas ce coin là donc euh, qu'est-ce qu'ils font là-bas un film sur Myriam Makeba. dañuy projeté film. ah d'accord en fait le film Mama Africa retrace la vie de Myriam ah, Makeba. tu vois donc fi ñu koy defee mu tudd Ola Cervantes. d'accord ëttu camp Jérémie la nekk ca point E. ok d'accord ouais, euh, donc tey la à partir de dina dem parce que Sénégal fii xam nañu ni. Kumba Gawlo euh, sa marraine c'est Myriam Makeba. Mm. ah certainement kenn du ko fa jiitu. voilà Myriam Makeba qu'on apprécie tellement. que tout le monde euh, apprécie nous qui sommes dans le monde de la culture. <laughs> je te comprends Pape voilà. Cheikh. Mm. <laughs> donc Pourquoi mercredi oui je te comprends mercredi 7 septembre <laughs> beneen projection film mi ngi tudd l'orchestre des des l'orchestre des aveugles sa institut français de Dakar lay amee. donc benn film la boo xamante ne ay woykat bu marocain lañu. Mm. mais ñoom comme dafa nekk euh, fi ñu koy defee c'est une société ultra conservatrice mm. ñoom bu ñu bëggee dem mm. woyal ay euh, ay jigéen ils se font passer pour des aveugles comme ça dañuy foog ne ne du ñu gis dara lu xew ah. waaye mu am euh, par contre kenn ki nga xam ne il se fait passer pour un aveugle mm. bu mu demee dafa am koo xamante ne ku mu fa gis mu bëgg ko ah. donc je vous laisse euh, imaginer la suite voilà allez chercher ça, ça, ça, d'un bon film c'est un bon film déjà li nga nettali nii rek gàtt na mais bon. ça me donne envie de regarder xool xool lu muy. les gens qui sont passés pour des <laughs> aveugles quand même defe naa ngéwéle weesuwul lool. <laughs> ngéwéle nga ko teg noonu. passé pour des aveugles ba gis koo nopp waaw noo noo koy waxee. noo ko gisee <laughs> dama laa gis. Ah, c'est vrai c'est une bonne idée ça oui di dóor dañ doon dóor quoi ñoom mais ça a l'air d'être un bon film merci beaucoup Aïssatou Paye Fall moi j'adore ta rubrique moo tax je rappelle que l'émission elle est sponsorisée officiellement les mardis par Aïssatou Paye Fall 9 <laughs>